waaw sëñ bi léegi boo fi teggee sa ndey ak sa baay wuti sëriñ bi sëriñ bi lu mu lay wax barke papaam ak yaayam yow sa barke baay foo ko teg hmm? boo nangoo ne say kullu nafsin lu mu tekki bakkan bu ñam dund nga nangu ne Seyduna Muhammad deena sama papa deena sama yaay deena waaye sëriñ bi dafa làqu fu mu làqu fan la làqu seetluwoo leen sëriñ bi muy dund la am chance waaye bu dee amul chance benn nanguwuñu ne dafa dee dafa làqu lañu wax nan la ñàkkee chance sëriñ ku ñu néew a koy ñaanal njéggal yal na yàlla yokki leeram rek lay dégg xanaa balaa dara leer ñu jéggal buñ ne Seyduna Muhammad lay wax sallallahu alayhi wa lu mu tekki salla yàlla na ko yàlla doolee jéggal allahu yow yàlla lañ koy ñaan alayhi ci moom rasulullah wasallam te nga musal ko ani fu ñu ñaanale Seydina Muhammad leer dégg nga ko sëñ bi moom yàlla na yàlla yokk leeram loo ci teg tataas ma ci barkeem boo taasoo ci barke koo xam amagul njéggalal yàlla bu ami njër nangoo foo jëm te it gis naa lu ma metti nga taxaw ci jakk julli ne iyaaka naabudu wa iyyaka nastain ba pare sukk ci bammel di ñaan sa soxla ki nga xamne ne yaa ko yeew ba mu dëgër gasal ko bammel dugal sul sukkat fa di ñaan sa soxla koy ñaan yow au nga ñaan lako dédé tok fa di ñaan soxla koy ñaan ben nga dekk sa loxo bammel di wax ak koo xam ne du la tontu bu la tontu woon léegi nga fëx baay say daal daw bu yëngaloon loxo ci bàmmeel ngëpp milliard la ko jox daa ko jël ana yàlla te maa ngi am lu may dégg ñu ne jigéen du dugg armeel man weddi naa ko de xabru sëriñ si ñoon ñoo fi fees dinaa la may benn secret ci suñu jamono ji nga dégg jigéen di sëy bëgg am doom mu të suñu jamono yaay barewut xam nga lu tax mu bare léegi ñaar ci sama xel bu gàtt jigéen ju toll ci njur warta xam xunóot xunóot bi ñuy jàng ci julli suba jigéen a tax ñu di ko yellu boo ko jàngee ci kaw jigéen ju ànd ak ëmb bu ca déggee benn araf bu amul chance lépp tuuru jigéen bu ko mokkalee ci ndawam bu amul chance jaasir te lool ñi ñi ko xam duñ ko wax kenn dañ lay bàyyi ca lëndëm ngi ngay dem mil benn ñaareel dañuy sol silibab kese woddu dugg ci xabru sëriñ si le fait que sëriñ bi tere la sa armeelu baay jigéen du fa dugg ubbi la bàmmeelu baayam xel nangu na ko silibab kese wala ñak sol dara wod ñëw taxaw di ziar ki nga ziar ya nga taxaw tiimale ko sawra ku ñu duggal bammel yeewu nga bo taxaw ziar ki nga ziar ya nga taxaw tiimale ko sawra mu taxaw mu fa mu di la mool nga jugge fa dem kër ga man de dem naa an dug na ci xabru yeb ziar na xabru yeb fekk fa nga gëna a yàqalee sa bopp tiwaan lañ nek do gis jigen ju sant si di taxawal ci xabru parce que yeenañ la parce que yee nañ xam nañ li xew jigéen ñeent la ko yàlla di meree tëj buntam àdduna ak àllaaxira woy jur mer yàlla mer tëj say bunt yàlla nañ ci yàlla musal sa boroom kër mere la ci farata yàlla mer tëj say bunt yàlla nañ ci yàlla musal yàlla mer tëj say bunt yàlla nañ jigéen ñeenteel mooy war te néegam te jiitalul tubéy te jigéen bo ñëwé té tiwaan bëgg défar né da ngay ziar bo bëggé ziar taxol Carrefour Carrefour ba ci station nga def sa ziar waye bu taxaw mukk ci buntu xabru serigne si waye da nga naan ñëw ba né ko rap ta sa armée lu bay aram la xel nanguna lolo ñu sonal kaamin ñi ñuy ci dëj yi am na lu ko gëna dal sama xel ndax tétuñ ko xaalis la ñuy wàcce léegi bu ñu demee bay waxaale kaamil ani kaamil seetlu ñu koy waxaale kan moo wér xamul tax duñu wér danga waxaale danga fayee ko boo fayee ko nga lekk te fekk ñaan gi nanguwul foo jëm nga dem jël ko jox ko sa njaboot ñu lekk foo jëm seetlu nga leen senegal jullit ñi rek a feebar ci fànn yëpp ndoxu cité ngi nii ani njaago bu ko jàmbat gis nga ko gis nga chrétien bu la ko jàmbat xam nga lu ko waral ñun lu wax ci julli iyaaka wa iyaaka ñun waxuñu dëgg njaago bi chrétien moom lay mom la firi dem diko ko ñun ci buntu lamiñ bi la yam ñun bu nexé ñu ne sëriñ bi la bu naqaré ñu ne cey yàlla anu ya-, anu yàlla doo ko gis ñom bu nexé ñu délo yalla bu naqaré ñu délo yalla ñun lu baax lu ne sëriñ bi la lu bon lu ne ñu ndogol yalla ma jox la len est ce que xam nga ne Sénégal bi mam Abdoul Aziz bax génn àdduna ak est-ce que xam nga ne Sénégal dañuy lakk néew. caan gi dañuy lakk néew. ñu sàng-sàng tëral julli di la yor bàmmeel yàlla na ko sëriñ bi teeru waaw bu dee sëñ baa nga sawra koo xam ne dañ koo jomba ñaanal njéggal dañ koo jomba ñaanal njéggal fii amul kenn ku amul benn sëriñ bu fi fii ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na yàlla yokki leeram te Seydunaa Muhammad ba tey njéggal lañ koy ñaanal ko de ñu ne ma nga aljanna foko te te sayyiduna muhammad du gogul aljanna ñepp nga bar sax di xaar yow nga ne señ ba nga bir aljanna foko te ye seri ci tam da ngay gis ne buñ génnee àdduna bi kenn du dégg ñu naan mirage nañ leen ak yooyu mm, moo nga ba pare nga ne señ ba nga bir aljanna foko te ku ñu mirage gul ni kañ ngay tali ah yaa ngi nii toog su ma la day doo xeex waaye bu ma saagaa sëñ bi nga xaru lii sol laab na ci man jul ngir yàlla kenn ma faale waaye sol jes ne gaare oto soppee sëñ bi nga million def ci taxaw di seentu pay bi yàlla nga dee ñuy dugal bàmmeel yàlla na ko sëñ bi teeru fu mu ne déggaguma ci senegal nit di sul néew ne yàlla na ko yeneen ci bi teeru sëñ bi rek mooy teeru Seyduna Muhammad amatu fi yoon Sénégal dañ ne quatre-vingt-quinze pour cent musulmans au Sénégal ñu ngi julli jàng alquran wasifa lazim gàmm màggal te jullit ñi rek a feebar. oto opté yëpp jullit ñi rek a wane boo dee ñu ne yóbbu leen Tiwaawan yóbbu leen Tuuba kuñ fasul aljana nga jëm fu ko yàlla wax. fan la ko yàlla wax toog fii naan sëñ baa nga biir aljanna lan moo ci wóor lan moo la ci wóor man li may sàkku jaamu yàlla yi ku sukko sa xabru sëriñ wala boo julleetee ñaanal sa sëriñ njéggal ak yërmande loolu lay sekku sàkku bépp jullit boo dee ñaanal say néew boole ci ci say sëriñ ndax gannaaw nangu nga ne sayduna muhammad dee na ba nga naan allahuma salli ala saydina muhammad ba nga naan sallallahu alayhi wa sallam nangu nga ne papa dee na yaay waaye sëriñ bi dafa làqu fu mu làqu fan la làqu man mii toog nag dama jël sama ñaar fukk sama ndékki matul ma jël ko dem di ko jox sëriñ bi jéggi papa ak yaay jël jox ko sëñ bi mu jël lekk bëgg maa jiitu aljanna xel nangu ko te yàlla ne balaa maa in yàlla ne balaa maa jox na fekk ndey ak baay suur léegi na su jubee ci yàlla bu da ngay suñu mati la ngeen baal ñu àq salaamaaleykum wa rahmatullah